ñeenti million loolee mooy koppar yi nga xamante ni kii di maire si la moom la jagleel ñaari équipe yu war a teewal Thiès fële ci phase nationale yu 2016 yi nga xamante ni moom moo war a am ci diwaanu Ziguinchor li ko tàmbalee fukki fan ak ñaar ba ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru août bi ñu nekk muy guléet fii ci diwaanu Thiès ab maire génn koppar yu toll na le yu toll noonu le jagleel ko équipe yi war a dem ci phase nationale. jàmm Diamaguène moom moo war a teewal diwaanu Thiès ci wàllu mag ñi maanaam senior ak ASC Grand Thiès moom mi war a teewal diwaanu Thiès ci wàllum cadet maanaam ndaw ñi ñaari équipe yooyu la ñoom ñaar ñëpp jox nañ leen ku ci nekk ñaari million loole mi ngi am ci ndaje bu ñu amal tey jii fii ci mairie bu Thiès alxamis yemook alxamis ndaje bu yemook alxamis 4 août 2016 ngir jëbal leen subvention yooyu le Pape Babacar Mbow di président ASC Jàmm Gën moom àdduna ci di remercier le maire de de la ville de Thiès monsieur Talla la ndax euh, jàpp naa ne lii yombul c'est la premier fois comme ni ko président ODCAV waxe sulvation bi doon 2 millions mu njëkk ci ñun kon du ñu def lu dul kontaan ci lool bég ci moom di ko ñaanal fii mu nekk nii yàlla saxal ko fi yàlla gën koo yaatal ci barke yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci wàccaay yi ñi ngi recruter nañ ay joueurs ñi ngi ci entraînement yi président ODCAV ñi ngi jàppale ci administratif beeg yëpp lépp loo xamante ne jaaxal nañu dinañ dem ci ñoom waxtaan ak ñoom ñu teg ñu ci yoon kon jàpp naa ne fii ñu nekk ni un de aide rek comme ni monsieur le maire def ñeneen ni suñ ko defee rek jàpp naa ne dinañ dem ci jàmm nekk ci jàmm ñibbisi si jàmm indaale ko bi su neexee suñu borom. Babacar Diallo di président ASC Grand Thiès moom mu ngi ñaan ñaari équipe yi nga xamante ni ñoom ñoo war a teewal diwaanu Thiès fële ci Ziguinchor di leen ñaan ñu bokk ndey bokk bàyyi àndandoo joxante loxo ngir ndab li mën a ak si Thiès. voilà man tey vraiment dama am euh, contentement boo xam ni fu ma ko natt rek passé na ko bon waaye aussi bettuma ci le maire Talla Sylla pourquoi bettuma ci le maire Talla Sylla mooy que ne ku xam Talla Sylla xam ni nit ku dëggu la te nit la koo xam ni nit ñi dañoo am yaakaar ci moom nit la koo xam ni aussi ku xam boppam la te it euh, lépp loo xam ni daf koy wax daf koy def lii nag dafa nekk loo xam ni nekkul mbetteel nag ci ñun bettuñu it parce que li mu def nii. yaakaar naa ni région bi la ko defal mais defalu ko sax boppam parce que ñun bu ñu jógee fii dem phase nationale Ziguinchor dañu ñëw dañu dem pour défendre couleuru région de Thiès kon tey jii su fekkee ni jël na enveloppe deux millions de francs def ko ASC Diamaguène def ko ASC Grand Thiès kon tey jii yaakaar naa ni duñu def rek lu dul ñaanal ko yàlla. ñun suñu objectif niñ ko njëkk a waajalee mooy que ni. ànd kook euh, suñuy frère ànd kook suñuy am di jàmm ànd kook ànd kook ASC jàmm gën ñoom la ñuy njëkk a pour pourquoi ñu di leen njëkk a mooy que ni ñoom ñooy ñun ñun ñooy ñoom kon tey jii su fekkee ne dañ fi jógee nekk Thiès di dem Ziguinchor donte xamuñu fa kenn xam nañ fa kenn kon ñun ñoo mën a jàppalante si suñu supporter fekk ji leen. bu ñuy football bu ñuy match ñu accompagner leen supporter leen ba ñu am ndam ñu wëlbati ko ñoom it supporter ñu ba ñu am ndam après ñu àndandoo ñibbisandoo wa ilaa ku nekk rek ñibbisandoo ci jàmm bu ñu ñëwee ñu fête suñu victoire. Ismaïla Diallo moom la ñu dénk commission bi nga xamante ni moom mooy yëngu ci wàllum tàggat yaram fii ci mairie ville bu Thiès wax na ci turu maire Talla la dafa waxoon ne tey suñ ñëwee nañ ko moom mënu fee nekk parce qu'il est actuellement. il est, il m'a appelé tout à l'heure, il est à Ziguinchor pour les besoins de non seulement des phases, mais d'un futur jumelage entre Thiès et, et Ziguinchor. donc lii moom traduction la fi ci biir mairie bi équipe yi nga xam ne ñu ngi dem phase nationale ñu leen di jàppale parce que ñëpp xam nañ ne phase national yi li muy engendre ci. ay dépense dafa bari te souvent équipe yi amuñu doole boobu ñu war a am pour mën a téye seen bopp foofu ni ñu ko war a téye parce que la preuve année yi passé chaque année di nga toog en un moment donné équipe yi fa nekk di wax ne vraiment suñu leen doole woon ñu jël parce que dépense yi surtout looy gën a qualifié di dem di fa gën a toog dépense yi di gën a jafe di gën a metti mais maire yi toujours doon leen maire yi doon leen accompagner toujours pour ça. cest à nag dafa am un cachet assez spécial d'abord fi ñu jëm dafa sori mooy Ziguinchor le transport seulement tout court pose énormément de problèmes à fortiori maintenant suñ ci bëggee yokk li nga xam ne moom ñu fay dundee dans des conditions normales ce que les physiciens appelleraient des conditions normales de pression et de température donc parce que ñëpp xam ne ne compétition dafa am lu bari mu laaj laaj na entraînement d'accord mais laaj na lekk bu normal et à des heures euh, normales pour nga mën a am un minimum de performance mais su fekkee da ngaa dem ci compétition war fa jongante ak say morom xamoo ñoom lu ñu préparé woo yow nga ñëw amoo la nga la nga waroon yor amoo le minimum le plus du minimum quelquefois dafay xaw problème ce que la la maire Talla a compris en essayant di jàppale leen ci li mu mën ca jàppale leen conséquemment parce que nañu waxante dëgg man maa ngi ci sport bi depuis vingt ans ci ci affaire maire yi boobu ñëwaguma si mairie bi mais biñ ñëwee mairie ba léegi mosuñu gisaguñu fi li ñu fi joxe ren nii pour ñu dem Ziguinchor donc ñu mos ko fee joxe donc ñu mos am nii mais nag loo gis ci àddina noonu lay demee progressivement lay dem ba egg fi mu war a dem. parce que suñu waxee bu njëkk ba li ñu doon jàppale <laughs> équipe yi ba fi ñu toll fii léegi soo ko xoolee multiplier dañ ko même par dix. Ousmane Diop moom lañu ñu dénk kuréel gi ñuy wax ODCAV. naaw bi mu rafetloo taxawu ak jàppale bi nga xamante ni kii di maire Talla la mi ngi koy jàppale football bu Thiès moom nee na lii sax du gële ndax lu jiitu lii ay ay bis yu ñu génn rek kii di maire Talla Sylla génn na lu toll ni fukki million ak juróom pour ñu defaraat stade bi ñuy wax Maniang Soumaré. Euh, bi may ñëw sànq maa ngi koy wax Doudou man dama lay wax bëggoon naa séeréer bi gënoon am plus de valeur que mu nekk loo xam ne vraiment dañ koy gën a réew si ñëpp yëg ko parce que li fi xew tey je crois que c'est une première dans l'histoire du navétane et à Thiès Grand Thiès ak Diamaguène dañoo am sas bu rëy parce que Grand Thiès ñoo gagné coupe bi daaw à Kaolack seen première participation en ñu war a dem défendre seen titre gën yàgg naa dem fa c'est vrai. mais ren dañu ni ñun nous voulons faire plus que R100 parce que ñoo xam ne daaw en senior R100 moo ñu représenté te R100 foot final donc que R100 mooy bi donc mu nekk donc suñu ñaari ASC yëpp ku nekk tey jii bëgg nga dem Ziguinchor gàddu ñaari coupe yi indiwaat ko Thiès ñun bi nekkee nawetaan au début ASC yi daan dem phase l'appui était de 300000 300000 la ASC doon jot que crois que cinq la joxe pour la première fois 500000. mooy bi jaxaaw gañe coupe bi ak mbambara daaw ASC dem le maire Talla joxe un million cette année mu doublé ko def ko deux millions par ASC je crois que loolu c'est et c'est je crois que loolu ñun yëg nañ ko mais ASC aussi yëg nañ ko phase moom ku xam ma ne mooy yoo xam ni dafa metti par exemple wax léegi ASC dañ ba foofu yuuxu mais daaw ku rëkku xam ne R100 wax na ni. benn yoon amuñu benn problème parce que les autorités les collectivités locales dañu leen soutenir du début à la fin ba li RSA bi am am ko je crois que tey jii ñu ngi wan mi ngi commencé wane ni conditions yi RSA yu ko gën la ñu bëgg a mettre Grand Thiès ñu bëgg a que loolu président Dia Grand mi ngi xam na ko président Diamaguène mi ngi xam na ko. mooy li mu mujjee def ci stade bi je crois yàgg moo nekkoon yàgg na ci commission sport dañoo yàgg jooy jàmbat pour stade. Maniang Sowane defar ko pour la première fois la mairie dégagé une enveloppe de 15 millions mën nañ ni bëri na bëriwul mais quand même wàññi ci benn nay commencé te ku def 15 millions ren xam nga ne déjà am na loo fa war a def soo amee peut-être un milliard di ko fa di ko fa def.